salaatu seen بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت Rahman صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك برم توبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ah, mbokki taalibe yi mbokki jullit yi eh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ah, tey jii nag ñu ngi fii ci Touba Mbella di ngan goo xamante ne Serigne Hamsatou Mbacké mu Serigne Souhaibou moo ko ngane si Serigne Moustapha Mahmadan di kenn ci moom di jëwriñ joo xamante ne ah, ab pëstéefam ci kër Serigne Hamsatou Mbacké kenn waxatu ko fenn ndax leer na ñëpp dend ak koo xamante ne moom it muy benn taalibe ci kër gi muy sëriñ Mame Mbaye di koo xamante ne lépp sëriñ bi mën nañ ne la ñu bëggoon na laaj sëriñ Mame Mbaye rek nan nga gisee bés bi tey jii. waaw yaaram noo ngi leen di siyaare bu baax a baax tey jii ku xool ni bis bi demee gis jëmm yii ak coono bi ñu daj lenn rek lay firndeel mooy gan gi ni mu waaye bala maa ñëw ci bis bi. ma ñëw ci diggante sëriñ Amsatu ak sëriñ Moustapha ma ànd ak sëriñ Modou Bey male ak sëriñ Abo nu bàyyi suñuy barab bàyyi suñuy liggéey ñun ñëpp ngir ñëw jàppale sëriñ bi ci bis bi sëriñ Moustapha day ak sëriñ Amsatu seenub ànd àddina may dégg dafa mel ni ànd ba sëriñ tubaa ànd nag sëriñ Massamba àndum nawle la ñu ànd àndu pas-pas la ñu ànd àndu xol la ñu ànd ndax sëriñ Bay Jaxate daa wax ne mbokkee ka bokk ak yow ab xol waxaan ne koo xam ne kii yéen a bokk ab teeru bokk jëmu man ngeen a ànd di wéy bokki waxi na ki jëf koo xam ne kii bokku leen ab teeru boo ko gisee muy génn kay wàcc tàggoo leen i wax ak i jëf li leen boole nag mooy lam wax ne njegam da ngaa bëgg a roy nag dëgg kon nanga roy koo xam ne kii seeni ndab ñoo bokk wu ñu def sëriñ Moustapha ak sëriñ Amsa dañoo bokk pas-pas ci sëñ Touba yàgg gëstu sëñ Touba te sëñ Touba kat noo ko bëggee noon ngay baaxee sëñ Moustapha di soo xam ni wax naa ko ne ko ji sëriñ Mahmoudan tey jii bu fi ñëwoon dana siggiwaat ndax lii rek la bëggoon ci barab bi barab bi naa naax saayut ku dem ci dëkk bële sëriñ Cheikh fa nga faa ak rakam tund wi dëkk bi ëpp na junniy buntu kër tey jii jëndiw nu dara Touba lépp am na ci dëkk bi muy dëkk boo xam ne bañ koy gor seen maam ya ndox mu ñu naan balaa ñu ko am mu sedd la mu teey rek danañu dox ñaar fukki kilomètre mu bàyyi dëkk yu xumb ya moom sëñ Mahmoudan ñëw ci dëkk bi ngir liggéeyal fa yàlla mottali bëggug sëriñ ma Massamba ba tey jii dëkk bi tund wi mel nii ba mu fiy ñëw dañoo waroon takk di doxee Touba ba agsi fii ñim àndaloon di ay gor yoo xam ne dañoo jaayoon sëñ Touba seen bopp ànd ak moom ab liggéey pas-pas boobu ñu àndee woon ak yéene jooje looloo tax tey jii sëtam bii dem ba àggale lii sëriñ Moustapha mi ngi sant sëriñ Cheikh ak rakam yim àndal ak xalifam boobu di wax ne moom day nu mel ci sëriñ Massamba ñooma ku gis bis bii xam ne soxna yaa ngi nii di ay rakam di ay soxnaam di ay doomam ànd ak ñoom pas-pas bii ko gis teraanga yi xam ne tey jii ki gën a rëy ci àddina bu fi ñëwoon tey jii munta weesu ca këram teraanga yu toll nii mu wax ne jox nañ jox na leen naam de waaye luñ ko dolli ci ay teraanga ëpp na lii moo Mahmoudan tey jii xolam sedd na fa mu tëdd tey jii xam na ne suuf si dundaat na tey jii jaww jaww ji mànd na ak alxuraan sëriñ Bey mais daf maa wax ne jaww ji ko fi dugg saxel xel dalay jox xel koom muy barab bu doy waar boo xam ni ko gis ni mu demee diggam ak Touba da nga xam ni. kere ba ko sëriñ Mahmoudan di sant sëriñ Cheikh seen waajur wa lii rek la fi bëggoon dëkk bi wéttilu ko na ndax ñu ngi fiy tarbiya ruu yi di jàngal nit ñi alquran di fi yar nit ñi muy bëggug sëriñ Massamba di di bëggug sëriñ sëriñ sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha nag daa wax ne tey jii ganam gii dafa gëm ne sëriñ Touba mooy gan si sëriñ Massamba te ne xam ne sëriñ Massamba day ànd bi mu àndandoo ak sëriñ Touba sëriñ Massamba sëriñ Touba ko lépp mu jox ko boppam biir ak bitéem sëriñ bi lu ne ci moom mu def ko ca kon tey bu leen seen ñaari jëmm yooyu bu leen yàlla boolewaatee ci kaw suuf sëriñ Moustapha maa wax ni liggéey bu sëriñ am sa tudd wootee bokk na ci ñi jikka génne addiyam kenn mënu ko ca muy jàmbaar joo xam ne noppal na sëriñ bi maa ngi leen di seeral ne ku sëriñ bi di déglu ca xalaat la sëriñ am sa day wax sëriñ Moustapha ne ko yow loo xalaat bu noppi nga ma war di wax sàllaaw Moustapha bu génne ci mbooloo gis ko xelam day dal àndut tag moom ànd ànd bu dul àndam nawle ànd ba sëriñ Touba ànd ak sëriñ Massamba sëriñ Moustapha mboolem ko mbokkal sëriñ Touba naw nga ko ci fas fas muy koo xam ne ku teelu gëstu sëriñ Touba wax naa ko ne ko tey jii li nga li nga li nga li nga gànnaayoo ci lu wér ci sëñ boo ko waxoon tey jii nit ñi ñëpp danañ xam ni kii day ba muy gëstu sëñ Tuubaa booba yàgg na lool waaye sëñ am sa naw ko ci pas-pasam naw ko ci ak bëggam sëñ Tuubaa léegi daf maa wax ne lii ma def nii lépp sëñ rek laa ci jublu waaye tey ji teraangay sëñ Tuubaa ji dikk na ci moom muy exemple nag doonul sëriñ bu toog rek di xaari addiya te bu ko defaat mu doy waaye mu ci secteur bi mu nekk mu ca yëngu ba doon ci exemple ku ko xam ko ci liggéey di yar taalibe yi daara ji jenn la ci ay daaraam boo ko wàññeen mat ni juróom-benn baa ëpp ko te daara joo ca dem moo yor ay dongaam di leen dundal di leen teral di ab liggéeykat boo xam ne wax naa ko ne ko yow sa ñaari wiir yëpp day sëñ Touba mbax boo ko dàqee ci sëñ Abdoulahi sëriñ Abdoulahi borom dër bi ba muy toll ci am senegal dañoo àggan ci di ko takkal ay médaar ci wàllu liggéey sëriñ Abdoulahi maamam àggoon na ci basan yi ñuy gis dañ ko daan ràbb foofee mbooleem ay jën da ko daan importe ñu koy andi ñu koy dugal foofee ca ca ca yiba nga xam ne mbooleem lu mu amoon ca tuukaram boobee dara manqué wul fa woon moo doonoon koo xam ne parfum dañ ko daan composé ci ay fleur da ko daan def doonoon ko xam ne biti réew nit ñi dañ fa daan di xool ab liggéeyam kon moom daa doon maamam waaye bu ñu ñëwaatee Sëriñ Massamba nga xam ni Sëriñ Touba moo wax ne Sëriñ Massamba suñ borom moo sàkku ci Sëriñ Massamba ñu ñëw maasal Sëriñ Touba xasida yi kon bu wëlbatiku waatee di bind xasida na ci liggéey bi Sëriñ Touba Sëriñ Mountakha doy loo ko lool mu ne ci biir ay kilifaam di defaree day gone waaye cirum mag la am yàgg am cës lay ci njabootug sëñ Tuubaa gi tey ji am na ci loo xam ne bu doon koy wax la dama koy wax ne ko lii ngeen ñuy ci ay waxtaan mosuñu koo dégg fenn ci àddina kon jëf ji ngeen jëf te sëñ Tuubaa rek tax te sëriñ bi wax ne teraanga day mooy li ñuy teeroo gan te gan gii ko ko xam-xam ni gan la gu xam teraanga waaye xam na ne lii ngeen ko taajal palaa yu la xam na lii ngeen ko taajal nan la toll lii yittee ko def pas-pas ko def ndax sëñ Moustapha ne bu leen joxan benn dolli ngeen ci fukk juróom-ñeent kon mi ngi ñaan ci daraja Serigne Touba seen jëf ji yàlla na yàgg tasar barke Xaadimal Moustapha lii nag mooy waañu soxna ma Awa ak soxna Fatou ma diine mi mu àndal des na weneen waañ ma nga nële ñu présenté leen ko naanu yi itam ma nga nële doom yi desut pot yi desut lu dagaan rek sëñ Moustapha andi na ko ci bis bi te lii di a sëriñ bi ak ñi mu àndal noonu lu tund denc ñu ñam ñi fii rek ñële di ko coddam di ko di ko xool te duñ ko gis déedéet dañoo añ ba noppi ñu bëgg a taral sëriñ bi kon sëñ Moussa daa wax ne ganam gii gan gum fonk la lii asaka la rek ci li muy feeñale yéenam waaye li ni ci xolam diggam ak moom xam na sëriñ Touba xam na mi ngi ñaan ci rëy sëñ Touba coono bi ngeen ci daj yàlla na sëñ Touba dajale leen ci tafeex ak ndimbalam ngeen yàgg ko fi andi te yàgg ko fi fekk barke Xaadimal Moustapha wax na ne sant na leen bu baax a baax ci taraanga yi ndax ku gis jëf ji xam ne ne bu leen joxan benn dolli ngeen ko ba mu yokk nee na nag moom mooy Baye Fallou Cheikh Moustapha kon ku gis saraange yi xam ne ab xolo ko togg waaye ak bëgg ko toll yëg ko togg sëriñ bi nee na wóor na ko de bu leen joxan benn dépassé ngeen ci lu ëpp fukk soxna si sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ci jëf ndax jëf yi rëy na lool gan gii mu am nag moo toll noonu ndax daa wax ne sëriñ Massamba tey jii la sëñ Tuubaa di ganes wax naa léegi si wax ji ma waxoon sànq ne dañoo ànd àndab gor kon nit dana am gan bëgg koo teral léppam doy waaye bu ko joxul ña ko mate amaan ñu xajamal ko waaye ku gis togg yële gis togg yii gis nañ ko berndee ak palaat yi yëpp da nga xam ne ñu ko jox feeñal nañ ci yéene kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci daraje sëriñ Touba yàlla ngeen ci dajeeg tawfeexi sëriñ Touba sëriñ Massamba mi ngeen di liggéeyal yàlla ngeen ci am tawfeexam sëriñ Mahmoudan mi ngeen di liggéey yàlla ngeen ci am tawfeexam waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw ginnaaw ban jógee ci sëriñ Mambay mu am kaddu yoo xamante ne doon na ko leeral ci wàllu waañe yëpp ah, ñu feggo it ak ki nga xamante ne moom it kenn la ci kër gi muy sëriñ Modou Bey ku ko xam-xam ko ci yittey Serigne Hamzatou Mbacké yittey Serigne Moustapha Mahmadan mu fekkoog Serigne Haboo moom it mi nga xamante ne moom it daanaka mën naa ne la benn lañ ba ci lépp loo xamante ne sëñ bi sax moom lay santaane ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo koy doxal yëpp ñooy ay tànkam ci barab bu ne ah ñu jóge Touba tey jii ñëwaat ci ngan gi nga xamante ne Serigne Hamzatou Mbacké moo koy ganasiwaat Serigne Moustapha ah, ñu doon laaj sëñ béy rek yan yëg-yëg nga am ci bis bi tey ji waa jërëjëf euh, ñu ngi leen di ziare bu baax te di leen sant euh, di wax rek lii moom lii sëñ am satu wax rek dafa matale lépp lii mooy yoon wi lii mooy dundal yoon wi ndax euh, sëriñ Touba jóge fale di gana si sëñ sàmba mooy rek sëñ am satu ñëw di gana si sëñ Moustapha sëñ Moustapha si sëñ Moustapha it wane ci yéene wane ci pas-pas wane it ànd gi mu ànd ak sëriñ bi sëriñ Touba rek tax ndax euh, lépp lu sëñ sotu woote sëñ Moustapha bu ñëwee sëñam am sotu da koy jiital mu jiite ci liggéey bi loolu nag ab taxawaayam ak pas-pasam moo ko moo ko may loolu waaye liggéey bi dafa am yeneen yu ci rax yoo xam ne dolli na ko ci te muy lu lu saf sëñ bi lool muy tey ji dëkk bi ak tund wi képp ku fi nekk woolu nañ la nga ñëw ñu consulter la boo amee tawat ju mën a doon ñu saafara ko jox la ay garab su dee dafay laaj nga am ay rendez-vous ñu defal la rendez-vous nga dem ci hôpital yi directeur u hôpitalu euh, Kaolack mi ngi fi am na ñu jóge Kaffrine am na ñu jóge Touba fu la ci gënal dañ lay boole foofu kon lii loolu dong buñ ci yemoon doy na sëkk ndax nit ki jaaxle ci tawat am jafe-jafe yi mën a faju nga taxaw ko loolu doy na waaye yemu ci defal leen bernde yoo xam ni wax dëgg yàlla kenn du ni ah man de waat naa ko kenn ku ci nekk yëg nga ci sa bopp ci tund wi te it fiñ toll nii lu jiitu kilifa yi di xewlu waa dëkk bi yëpp la defal ñu xewlu ba pare kon daal sëñ Moustapha dafa delluwaat tànk yi nga xam ne moom la mag ñi doon dox rek loolu la indiwaat waaw di ko sant bu baax rek di ko ñaanal ànd bii mu ànd ak sëñ Amsatu sunu borom gën ko cee kàttanal gën koo may li nga xam ne mooy yéene mu def ko ci barke Xaadimu Rasuul. asalaamaaleykum wa rahmatulah kon bi ñu jógee ci biir ci e, bernde yi comme ni ko Serigne Modou Bey waxee rek e, dañuy jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy sëñ Moustapha Bey. Touré e, sëñ Moustapha Touré. di chef bi nga xam moo nekk fii ci wàllu médecine bi tey ñu def lu am solo muy lan consultation gratuite. Euh, jox lay garab jox la lépp ci gratuite kon tey jii def nañ loo xamante ne euh, jëf la joo xamante ne tey jii euh, ñoom rek ñoo ko mën a seere waaye comme ni ko Bey waxee ci biir rek Serigne Moustapha Mahmadan ak Serigne Hamsatu Mbacké lépp lu leen waaye defar rek na nga xam ne looy gis la te luñ lay fay la loo xamante ne da nga ci teg sa bët ngeen jóge fii ba ci ay raison yoo xamante ne yu fasantikoo la bàyyi yitte yi bàyyi liggéey bépp ñëw fii tey jii ana nan ngeen dunde bis bi tey jii waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk taalibe yi ñu bokkal liggéey bi du leen sant tamit ci seen teewaay di rafetlu seen teewaay te xam ne lii lu ñu war la ñun ay taalib lañ taalib moom liggéeyal Sëñ Tuubaa rek moo ko war donc di ci sant sëñ bi tamit bu baax a baax bi mu ko bi ñu ciy boolee ci liggéey bi teg ko suñu loxo ñu ciy sant bu baax a baax. mu mel ne tey jii eh, consulté ngeen fi ay malade yu bari ah, yan jafe-jafe ngeen fi am. bon xam naa ne fi ñu war a commencé nag waaj daf bett parce que lu ñu préparé woon la woon ndax mën nañ ne semaine bi lañ koo yëg donc ñu préparé ñëw de ce am na lu bëri loo xam ne waroon nañ ko mën a indaale te indaale wuñ ko ndax euh, li mu li yoon bi jàmp waaw li ñu fi jafe ji jafe-jafe daal loolu la mooy matériel yi xam ne waroon nañ ko mën a andi te mënoon amal njariñ lool population bi nekk sur place te andi wuñ ko waaye nag si yoon yemul ci benn. bu soobee yàlla am nañ yaakaar ne bu ñuy ñëwaat dina mat incha allah incha mu mel ni euh, comme ni nga ko waxee euh, yëfu Serigne Touba moom euh, amul tànk ginnaaw yu kanam rek la am mu mel ne niñ koy waxee rek bis boo xamante ne day ñëwaat mu mel ne ren mooy deuxième édition bi ñu fas yéene lu weesu tey ñu waasala waajalaat troisième édition bi kon xam naa nan ngeen ko fas yéene waajale yéen. waaw man ci mbirum jigéen laay yëngu gynécologue laa donc te gis nañ ne feebaru canceru jigéen ñi dafa bari lool te am na ay jumtukaay yoo xam ne buñ ko andi woon yàlla mën na def ñu régler ci ay problèmes yu bëri te andiwuñ ko ñu am nañ yaakaar ne bu beneen yoon buy ñëw ngeen ko mën a indaale bu boobaa tamit dina tax euh, lépp luñ fi jàkkantoog ci yooyu ci xeet boobu ñu mën ko saytu mën ko topp tamit parce que li ci ëpp solo mooy topp gi. parce que ñëw rek nga ne ko lii daal na la bàyyi ko mu dem loolu yaakaar naa rek waaye da nga yan problème. waaw te loolu daal bu ñu ko andee woon bu soobee yàlla leen mën a saytu xam ñi ci am problème yooyu ñun euh, identifier leen man leen a suivre ba yàlla dogal liñ ci man pour régler seen problème ñu régler ko parce que loolu mooy yéene ji. waaw incha allah kon nag yàlla na nu yàlla may nu teewee ko déwén te ni nga xamante ne bëgg nañ ko ko népp ak programme bi nga xamante ne teg nañ ko pour déwén suñu borom defal ñu suñu kawe suñu njort ci barke borom Tuubaa bu sant nañ baax a baax. naa la jamaala bi man taa بالسماء نال جلال

وما جفوت بهم لفيت قلت قلبي بعد sa sira bi hadi hami hadi